mandat ku mer xanaa bugaan gay dani le mandat yéen kaay naan maan ma nga mer kay ba gàddug bi gëm bugaan teg ca di joxoñ loxo mel ni ku naan sàll lu nga bëgg du fi amee le mandat naan maan bugaan gay dani dënn ba jóg na rax ci dolli moom gay di wax ay wax yu rëy kay l'évidence yéen kaay naan man nee na ñaari millions yu carton yu rouge xonq currumani la ba mel ni deret moom la bugaan gay dani di gàddu fas ko yéen a joxoñ kay xanaa président Macky Sall yéen kaay bi naan man moom bugaan gay dani wax na ci présidentielle boo xam ne dañ koy dàq turbine naan kon may ma foofu maa ko ñaan l'évidence naan maan Bougane Gueye Dany wax na ci procès Sonko Adji Sarr turbine naan kon may ma ca ma ñëw l'évidence naan kon Bougane wax na ci Serigne Saliou Gueye mi nga xam na jàppam gi teguwul yoon turbine naan kon maa ca mën maa ca xam may ma ko l'évidence ba tey naan kon caxat-caxatee suuf sa sa géejawaay moom njiital gëm sa bopp daal dina cay wax le regard yéen a kaay naan kon fii maa ca xam dara Bougane Gueye Dany nee na lu ëpp juróom ñetti téeméer moom la ñu fas yéene tong-tong nag di ko séddoo muy suñu alal joo xam ne askan wi ñun ñoo ko moom sàll ngaari di ko neexalee nitam ngir ñu neexal ko ñoom it ngir ñu sar xooleel ko ñetteel bi mandat mu am ko ci mim réew direct news naan maan Bougane Gueye Dany ma gay wax ay gëm-gëmam naan dëgg la élection présidentielle day dina am ci réewum Sénégal waaye la leer ba leer mooy président Macky Sall moom du ca bokk ñun askan wi ci boppam ñoo dul nangu président Macky Sall di bokk suñuy élection tribune yéen a kaay naan Bougane Gueye Dany waxtaan la séq ak sans limite naan fa may dooree moom mooy xamal leen ni moom président Macky Sall jubluwaayam ci dialogue bi moom moo di dàq élection présidentielle yi ci ñaari at déet Bougane am te mooy dëgg ma ne la président Macky Sall fi ne bëggul amal élection yi 2024 daf ko bëgg dàq fii ak ñaari at nguufaan nag ci réew mi toog fi xoj ñu soppi charte yi nu mu ko neexee xàllal boppam yoon wi ngir mën a bokkaat talal jëm 2039 bugaan naan lii tax ma ne la dialogue bi mu bëgg ko amal ci réew réewum Sénégal Seydi Gassama ci 24 heures yéene kaay naan ko déet bugaan dialogue bi kay nag warees na caa mën a dem waaye lañ leen di xamal moom moo di ab loi d'amnistie buñ ko tëggal ñëpp nañ ko def loi yoo xam ne ñaar ñamu soxal do dong la soxal bugaan gay dani ci tribune yéen a kaay naan kon sëy di dialogue bi du dialogue dil la moom yéen a kaay des médias bi naan moom a ndax nag opposition bi daf ca am ñoo xam ne ay calculateur la di xool seen ëllëg ci waaye daf ca am ñoo xam ne dañoo radical kupp muy rek lu sàll lal nag ñu daal di koy lal ne ko bëgguñu l'évidence yéen a naan maan waaye yeewee ngay artu seeni ñooñ naan leen dialogue ba bëgguñu fa te ku dem tooñ nga ñu ku bokk yeewi laañi la bugguñu laa seen ca boobu la dialogue l'indépendant naan man dialogue ba ñeen cooy tudd diggante parti démocratique sénégalais taxaw Sénégal la te boo moytul PDS moom daal di yolleeku ndànk yéene kaay bi naan man seen digg ak président Macky Sall daal dafa am yoo xam ne lëndëm da ca am nee ñu nag terme de référence yi xamaguñ ko ci ñeenti fan boo xam ne dina jeeku boobu la dialogue bugaan gay dane ci tribune naan koon déet dialogue dil l'indépendant naan koon en tout cas PDS moom day ba nee na dialogue ba ña ngi jëm amul feuille de route dialogue ba amul agenda buy wax lañ fay wax ak lañ fay def mbir mbir mi daal di jaxasoo ca la ñuy waxtaanee te ña ngay laam-laamee ni dialogue ba sax ngir dàq élection la lii tax nag parti démocratique sénégalais xelam teey daal bugaan gay dana ci tribune yéen kaay naan kon bu mu yam ci teey wàccu leen te bu ngeen di wàccu na ànd ak boobu la dialogue ndax sàll nag ca la nar a jaare dàq élection présidentielle yi ci ñaar ci at ñu ko ko nangul ci mim réew ma ne la bésub dialogue ba ci boppam ñaari million carton yoo xam ne dañoo xon cur moom laay séddale askan wi ngir ñu jor ko président Macky Sall nañ kon troisième mandat am ci mim réew gaayu sans limite naan kon waa président Bougane loo xalaat nag ci procès Sonko Adji saar bi Bougane Gueye dani naan lii gàcceel na suñu république waaye caxat-caxatee na xar kanamu Sénégal ci bitim réew ca dootul baaxati yéen a ngi fàttaliku ba mbir ma jollee dama ne woon Ousmane Sonko wóolu naa la te waxtu woow ba ma koy wax man Bougane Gueye dani dama ne jël ab leader tuumaal ko lu tol ni wuyol boo amul preuve daal di sànk wala Bougane naan dama ne Adji saar ani say preuve ña nga àndal di jàppale laaj naa leen ani seeni preuve ndax nag gisuñu benn preuve xam ne taxal na Ousmane Sonko ci bile wiyal nga xam ne tuumaal nañu ko ko tey jii sénégalais yi gis boo xam ni nañ ko suwee baax na am ca gàcce doore ko ci man fukki bakkan ak juróom-ñaar bugaan gay dani ne rot ci kàcc ay nit ñàkk ci seen liggéey ay njaboot daal di ciy tàqalikoo ba faaw ndakaaru daal di ñàkk juróom fukki milliards bés bu yàlla sàkk saa bu ni atte Ousmane Sonko te lii lépp nag bugaan naan kenn teguñu ko kurul président bu ñu am boo xam ne dafa jàppe yoonu réewam ni powkaay fii dama fee gisul loo xam ne mën naa taqal Ousmane Sonko naan Serigne Saliou Gueye mani la wax ko ne doo taskatu xibaar day tooñ ko la fi mu ne kay dañ koo tegu gët bëggoon koo saax-saaxee bëgg cee jaare moom Serigne Saliou dafay déranger régime bi ndax nag engagement ak wax dëgg gi nga xam ne ca la nekk te moo ne day Serigne Saliou ci liggéeyam la nekk ak waxum dëgg yéene kaay bi naan maan ñaareelu retour de parquet bu Serigne Saliou Gueye ni ki démb la waxtu woowu l'info yéene kaay naan maan Idrissa Seck day ma ngay wili pande président Macky Sall bitim réew ci ñetteel mandat bi moom idi naan américain yi daw leen wallu ji réewum Sénégal toog ci wetam ndax fi mu ne bu ngeen leen seetaanee lambaay daal di ñaaw las yéene kaay naan man nu yàq ca bitim réew Sidiki Kaba Karim Fofana day ña ngi koy daal di defar fas yéene nag image u ba nu yàq ci bitim réew ñu daal di koy yeesalaat sursoi naan man Ousmane Sonko waxtu woow ma ngay waajal karawaanam nguurug senegal ngéem bu ba dëgër di ko xaar Abdou Karim Fofana ki turbine yéene kaay naan la ma ko mën a xamal moom moo di Ousmane Sonko na xam ne yoon moom duñu nangu ko jël ci mim réew source a naan maan ka yor communication bu gouvernement bi Abdou Karim Fofana ma nga naan la ma jaaxal mooy ndax Ousmane Sonko nag buggul caxat-caxatee boppam wasaare ko ñu daal di koy jàpp jàppee ko nag ci mbedd meeg salfaañe réew mi gënal ko nag jàppee ko wàllu mu yol le quotidien le quotidien naan man fi mu ne day nguur gee takku ba dëgër Antoine Félix jom ci yéene kaay bi naan ma ne la façon ba ni manifester moo soppeeku ci réewum Sénégal yoon la nag taxawaay gii nguur gi daal di koy am ci mim réew Moussa Sow njiital ko kocher ci la mandat yéene kaay naan Ousmane Sonko dama ne la woote na fi désobéissance civile fu mu mujjee Moussa naan ba mu dalee woote ci mbedd mi ngir ñu xeexoo yàgg na ay bêtises ay wax la yoo xam ne ñàkkub war ma moo ko lal Sénégal nag benn bopp la deesu ko xar ñaar ñaata nit la ñu atte ci réew mi ñaata personnalité it ñoo jàll ci tirbinal bu ndakaaru dara mësta am ci réew mi justice nag moom dina def liggéeyam ci nii mbaa ci naa réew mi ko dajee mel ni ku naan kon ku ko weddi danga nga demul démb ci assemblée nationale daanaka saaga yaa ëpp liggéey bi l'enquête ko dajee naan kon daanaka ci ring daal la ñu nekkoon débat yoo xam ne tàng na jër diggante Antoine Félix Diome ak député yu opposition bi jokkoor maa jog jokkoor leel am ca waxtu woowu source a naan maan tey daal Sonko dina def caravane am ñibbisi si Ndakaaru le point yéen a kaay naan maan ana Mamour Diallo mën doon tudd ca mbir ma keroog daal mbir yi leer na ne Mamour wul laalewul Walf Quotidien naan en tout cas Pastef fi mu ne day seen yitte war na nekk xoolaat beneen candidat ndax Ousmane Sonko boo mayul du bokk le mandat yéen a kaay naan maan bu ñii di taaxuraan ñii di liggéey SNHLM fi mu ne mi ngi fexe ba digganteem ak askanuk Sénégal confiance di kat ci yaakaar daal di ciy judduwaat Diagne Sy Mbengue directeur général bu SNHLM fas yéene doxal la président Macky Sall bëgg ci moom moom président Macky Sall Moustapha Ba ministre du budget ne dafa bëgg sénégalais yëpp am kër te du metti ci ñoom Abdoulaye seydu Sow ministre ne SNHLM lu toll ci téeméer ci junni ci logement sociaux war na ko taxawal tribune yéen a kaay naan maan ak lu mën a am Bougane Gueye Dany nee na daañu ubbi dialogue national bi ci mim réew dialogue national lañ ko tuddee te bu nu dialoguee ba noppi élection présidentielle yi daañu ko dàq ci diirub ñaari at ci réewum Sénégal te naan ku ci àndul fekk si mag sa bopp ñu jébbale ci ñaari million carton rouge yi nga xam ne askan wi la ñu bëgg ñu ràngoo ko wan bitim réew ak réew mi ne ñu benn yoon sàll sampaat ndëndëm ci miim réew ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew